donc di koy tëjee ak cérémonie officielle boo xam ne incha allah dina am ci ci suba si mooy le 25 ñaar fukki na juróom ci weer bi donc muy cérémonie officielle kon loolu yëpp xam nga ni dafa am lu koy jiitu mu am tam lu ciy topp tuuti ci yooyu donc jël ay matuwaay donc ci loolu yëpp ndax affaire bi mu nekk donc màggal bu mucc ay ndax màggal bu rëy la donc def naa nit ki lu mu ñàkk-ñàkk xam-xam bu ñëwee rek dañ leen ne gannaaw màggal bu mag bi donc dafa mel ni donc ci événement yu kii waa moo ci topp kon nag dafa war a dañ ko war a jël ay matuwaay yu am solo donc euh, ndax affaire bu mucc ayib ñëpp kontaan. xanaa xanaa waxtaan rek ndax comme ni ma koy waxee toujours réunion bi maanaam réunion boo xam ne dañuy topp euh, dogal yu ñu jëloon yëpp donc ci euh, loo xam ne suñu kilifa di gouverneur bu région de Diourbel donc ci biir waxtaan dañ ko tënkoon muy réunion boo xam ne dañuy topp loolu muy réunion de suivi bi évaluation. donc euh, balaa boobu sous-préfet bu Ndaam donc mom tam defoon na réunion lu ñu tuddee CLD donc ci fanweeri fan ci wér bu ñu jógee ni di weeru mars donc yooyu la ñuy waxtaanee lii yëpp donc top ben ben donc ak chef de service ak force de défense et de sécurité yi ñëpp pour xam fan la ñu toll ndax donc euh, matuwa yi ñu war jël ba nga xamné ne bi dina jaar yoon donc ben donc comme ni ko tuddee mo ci affaire kaaraange kaaraange bu ñu ko tuddee. dina laal nit ki dina laal am-amam donc euh, mais dina laal service yi ak yëpp ba nga xam ne ah, réew boo fa nekkee mu mun a woor nit mun fi dund mu wóor donc loolu waxtaane nañ ko ak police waxtaane ko ak gendarmerie waxtaane ko ak sapeur pompier yaakaar nañu ne donc euh, matuwaay yu jël yëpp incha allah donc euh, dina jaar yoon donc ñaareel bi muy comme ni ngeen ko waxee fii di problème affaire wér-gu-yaram santé donc ak lu mu làmb lu mu làmb yëpp donc lool tam médecin chef district sanitaire bi ak donc exposé ak ñu muy liggéeyal di croix rouge donc wa hygiène donc jël nañu matuwaay yépp donc liggéey bi sax tambalé na ba nga xamné donc euh, dinañu def lu ñu war def muy surtout aussi ak poste de santé yo xamné dañuy liggéey ak poste de santé avancé yi donc euh, manam liggéey bi yépp dal inshallah ak consultation yoo xamné inshallah incha allah bu jotee waa dinañ waaw pour pour ndox mi moom xam nga ko tudd ndox fi di nga tudd ci événement yu mag yi di nga tudd mbirum forage yi donc euh, benn ñaareel bi mooy camion yi bu ñëw yuy ñëw di appuyer ak bâche yi donc yooyu yëpp donc waa hydraulique ak ànd ak maaw rahmati moom tam dalal nañ suñu xel jël nañ disposition yëpp ba nga xam ne incha allah donc bu ci yàlla ante daal donc euh, donc euh, comme ni nga ko waxee daal appel la donc di waxaat ma dama koy fàttali rek ndax pour la plupart nit ñi xam nañ ko donc ñu bàyyi xel ci nit ki lu mu yàkkamti yàkkamti après lu mu am solo am solo bu ñu ñëw ñu bàyyi xel ci maanaam ñu ñuy dugg oto yi ak yeneen benn bi di euh, maanaam surcharge jël oto charge ko charge ko ba nga xam ne donc loolu tam loolu problème ak poids yi li ñu fay teg mooy surcharge surnombre donc ak excès de vitesse daw daw yu ëpp yi donc loolu nañ ci bàyyi xel ak chauffeur yi daal muy chauffeur yi muy client yi donc pneu yi pneu usé yi ak yooyu yëpp ndax léeg-léeg aussi nit ñi ci occasion yi la ñu profité di gën oto yoo xam ne dañoo gëj a daw xam ba kañ dëpp kañ waaw donc yooyu yëpp donc ñu bàyyi ci xel beneen bi mooy comme ni ma ko waxee fii ci nasaraan mooy euh, kaarange donc euh, am na solo waaye xam nga ne mënuñu jël euh, doomu aadama doomu aadama bu nekk ñu ne policier mu ngi nii mënta nekk donc euh, moo tax dafay am comportement bu ñuy wax comportement individuel nit ki lu mu war a am comportement collectif loo xam ne vraiment ñu ngi ñaan nit ñi bàyyi ci xel te nag boo gisee ñun ñu efficace en matière sécurité donc suñu efficacité il faut ñu am information nit ñi duñu wax lu ñu gisee loo xam ne dafa tey seen xel ñu teelu ñu ko wax donc nit ñi jël tam yeneen matuwaay loolu daal ñu ngi ci ñaax nit ci ñaax ñëpp di gërëm ñëpp ñu fa nekk fii di ziar sëriñ bi di teg ci loxoom pour mu jottali ñu ko xalifa général jërëjëf